ànd ànd yàqul compétition animosité euh, yàqul compétition euh, day gën a day gën a day gën a wàññi violence bi xam ne ñii duñu ay du ay ennemis ay adversaire la ñu adversité la fan sa club mënul comprendre foog ñu jàngal leen lan mooy adversité ak lan mooy animosité ci làmb amateurs yi xam nañu ko ñoom xam nañu ne mbër yi c'est des amis dañuy liggéey mais attends jaxasoo bii ñu jaxasoo nii du jaxasoowu du jaxasoowu bañ a bëre jaxasoowu défendre seen intérêt la te ñu yëg koo def yàgg nañu daje mais mbëri mësuñu wóolunte ñàkk wóolunte boobu dafa yàggoon ci ñoom moo taxoon association bi yàgg na bi ko Moustapha Gaye yoree euh, di ko di ko di ko di ci ànd ak ñoom Khadim Gadiaga di yéeg a ko wàcc ak ñoom euh, Kayre booba champion yi ca kaw euh, ñi nga xam ne dañu xewoon mësuñu leen bëgg dugal seen biir man mi bokk naa ci ñi laan doon jox micro pour pour dimbali leen ñu mën di communique les samedis bu ñu demee nag tey ba def benn bopp benn bopp boobu nag dañ ko yéex a sax def dañu yéex a sax di demalante dañu yéex a toogante làmb dafa am dafa dafa ñëwaat ci beneen leven leven boobu nag mooy def genre euh, association di défendre doo di dindinoo di wàccaloo c'est-à-dire problème bi mooy problème communication bi ni ñuy véhiculer communication loolu la ñu war a jàng comment nan la ñuy waxee ak autorité nan la ñuy waxee ak mbooloo ak booy wax te jiite mbooloo nan ngay waxee ba mbooloo mi yëpp gis ci seen bopp am ñu bañ a parce que bu fekkee euh, gis nga ñëpp mënuñu waxandoo mais am na koo xam ne buy wax dafa war a wax ñëpp gis ci seen bopp kenn bañ a frustré muy intérêt général waxu intérêt général dafa am waxu intérêt personnel dafa am loolu nag defe naa ne ñu ngi ciy forger wu te je pense que buñ ci bu ñu yàggee toog rek dinañ comprendre lante ba li ñu bëgg dinañ ko amando parce que amandoo la rek parce que euh, li ñu li ñu def nii c'est parce que ñi bëgguñu ñii am ñi ñii ñàkk je pense bien mais nañu bàyyi xel ne euh, ay niveau la ci làmb quatrième combat ba mbaru troisième combat mbaru nàngam ba ba ca mbëru mbapat ma lu traditionnel bi ñoom dañ ko waral a laawaale ci wax ji te xam ne ñoom ñëpp benn la ñu ngemb rek moo leen boole. li ma leen di conseiller mooy li ma waxoon au départ ci communication bi nañu xool ni ñuy waxee ak autorité yaa ngi dégg ñoom ay nit yu ñuy dégg la yu ñuy déglu la ay nit yu ñuy xool la ay nit c'est euh, vrai porte de voix la yaa ngi dégg euh, nañu xool. nañu nañu si seen biir yaa a des communicants nañ leen jox ñu wax seen biir am na ñoo xam ne seen xel rafet na nañ leen di dajale ñuy xalaat ci seen biir am na ñoo xam ne ay démarcheurs lañu kon nañu wut bureau boo xam ne euh, ku ci ne dañuy jox rôle nga defar ko rôle boo war a doxee rôle boo war a nangam am na ci ñoom ñoo xam ne am nañu audience am nañ am nañ euh, carnet d'adresse bu baax ñu exploité carnet d'adresse yooyu. pour seen pour seen pour seen intérêt am na ñoo xam ne tey bu ñu leen gisoon ñu def délégation fëgg bunt day ubbeeku yooyu yëpp mi ngi ci du làmb rek moo leen boole mais ak yeneen démarche yoo xam ne war nañ ko mën a def ci réew mi loolu laa leen di te ñu moytu ñu moytu ñi ñi ñi ñi ñi tàbbi seen biir te di leen pousse ci ci ci loo xam ne ay wax yu dëgër ay wax yu nàngam da ngeen ko war a da ngeen déedéet réew mi ku ci ne dafa am pàcc boo pàcc boobu nag da ngay yaakaar ne moom rek a war a dox waaye bul fàttare da nga ñeneen réew mi ñoo xam ne ñoom it dañu am yeneen problème te kenn du ko régler ku dul autorité bi kon man maa ngi leen di conseiller ne leen ànd bii day nañ ko gën a consolider gën ko raffiner te def intérêt général yéex nañu ànd yéex nañu dajaloo dajaloo bi terewul du ñuy bëre mais booy xool ñoom nii actuellement am na ñoo xam ne am nañ combat seen biir. am nañ combat te ñu bokk benn table di wax te loolu la ñu bëgg ndax fans yi bu ñu leen xoolee xam ne la ñuy daje ca terrain ba liggéey la bu paree amul histoire dañu war a joxante loxo gis nga mbër ba tàyyi euh, daan mbër may ko loxo akolaat ko euh, mu ñëw dem ñun liñ ci bëgg rek mooy ànd bi euh, jeexitalam muy sportivité sportivité parce que ñoom ñëpp fu ñuy mujje ci ci ci ci mbëru démb la ñu mujjee kon balaa ñuy dem ci euh, sagesse boobu mën nañ ko tabax léegi doog faa dem vraiment ànd bi wax naa ci waxaat naa ci nee naa leen yéex nañ ko def. kon man El Hadj Bekkay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui euh, maa ngi seetaan TV.